soxna Fatou Bintou Pouye ñu koy wooyee borom deer ca Ndindi jigéen ñi nag tudde ko tur woowule ngir jàppale nga xam ne jàppale na leen ko ci lu jëm ci wàllum financement yi jëm ci xam ne moom moo di deer loolu nag tey jii ndeyu mbili ji ñuy wax Pape Amadou Sarr bi nga xam ne moo di bu deer boobulee ñëwoon seet si soxna Fatou Bintou Pouye ginnaaw bu mu tasee ak soxna yi nga xam ne nii jot na leen finance ci lu toll ci téeméeri million ci koppari CFA te ñu bàyyee ko ci gox-goxaan yi gën a sori ci dëkk bu sell bi di Touba moom Pape Amadou Sarr nag bu mu accès yi le cadre la yëkkati bi di fësal ne li nga xam ne moom moo jëm ci deer boobulee bu accès Kindindi grâce à Soxna Faat Bintou Pouy ndax moom moo ñëw ba bureau am waaye itam financement boobulee koo mu ne ma ndindi financement mosu fa dugg ma ne ko loolu nu mu lay am ñu xool effectivement si programme financement yi fi mu si jaar yëpp daal ñu fa ñëw ma ne ah man dinaa fa ñëw man sama bopp dinaa ñëw seet euh, nu mu euh, demee pour xam lu ñu ci mën def bu ñu fi ñëwee mën a délégué ñu euh, waxtaan seeg moom ak sëriñ bi mu jox ñu ay dossier et ñu traité ko lu toll 30 ba 50 millions ñu financé ko si les 4 mois yi passé et comme ni mu ko wax waxee dinañ renouvelé waat enveloppe bi et dinañ defaat lu mu tuuti tuuti 30 ba 40 millions euh, pour deuxième tranche bu soobee yàlla. tey rek ñu ngi lekkoon fële Touba doon def remise de financement. 100 millions si 183 village Senthiane yi mhm. Moustapha Diakhaté moo leen dajale woon ñu doon def euh, renforcement de capacité transformation produits euh, agricoles céréales tigadege yëpp yoo xamante ne dañ déposé seen dossier si ñun mais dañ leen defoon dafa formation et formation boo dafa ànd ak centre d' incubation ñu jox leen ay machine pour Senthiane bu nekk nga mën a am une partie du financement donc foofu lañu demoon tey ñu jox leen 100 yooyu et boo jëlee loolu ak lu ñu def yëpp Touba entre Diourbel Bambey ak euh, departement Mbacké dugal nañ lu toll 1 milliard 700 millions de francs CFA ces six derniers mois dans la région de Diourbel. Mm-hmm. c'est la première fois gulet bu ma ko waxee président sax dafa ne nan ngeen defee li ma nag ah dañoo dem sur le terrain dès le début avril daaw bu ñu fi ñëwee premier CRD bu ñu defoon mairie ba. Euh, nit ñi commencé déposé gars yi commencé suñu attaqué naan Touba yombul. Euh, waa PDS ñoo ko moom boo leen financé fii du jàll nekk sax ma la ah man de bokkuma PDS bokkuma APR daanaka américain lañ mooy bureau ba ndax xaw ma fi kenn. fa ne ko léegi ñu ne ma ma ñëpp laay financé Macky Sall lu ma laaj mooy amul xaj seen parce que dafa am jigéen ñu fa jógoon naan ñoom PDS lañ bokk. ñu wóor na leen du ñu am financement ma ne ko non déposé ngeen xam di ngeen jotol doo leen jot bu ñu jotee seen 20 millions gëmewuñu ko ba léegi ak yeneen ak yeneen donc bis ni tey dugal nañu 1 milliard 700 million si région Diourbel Mbacké nag moo si ëppale département bi am na 1 milliard de francs fa Diourbel am na lu toll 300 millions et Bambey am na lu toll 260 millions et si loolu dugal nañu aussi marché central au poisson presque 50 millions si euh, euh, jigéen ñuy liggéey si poisson bi ak soxna maam xari et am na aussi benn financement bu ñu def ak ASC yi Touba ak ONCAV lu mot 36 millions de francs fa ak camion frigo aussi pour euh, transporter jën yi entre Dakar ak Touba et deuxième phase bi ñu ngi xool euh, lépp luy dem si wàllu mbay agriculture ak pisciculture daanaka sax def nañ benn projet ferme piscicole euh, Patar mooy xale bu góor boobu faatu woon Fallou seen parce que daje woon naa ak moom Université Saint-Louis trois jours avant muy décédé léegi dafa buggoon def ferm piscicole léegi bu mu bu ñu demee foofu xool waxtaan ak papam defal nañ ko ferme ak waa ANIDA boo commencé nañu 25 millions euh, ñu ngi ko tuddee sax ferme avicole euh, piscicole euh, Fallou Sène et loolu rek firnde président ñun politique ñu man man du ma politique man président lu ma sant mooy Pape Sarr technicien nga defal ma développement et boo xoolee toutes les régions tous les départements du Sénégal wër nañ ko def nañ les 45 départements et on a euh, joxe nañ lu toll tey vingt neuf milliards de francs fa xaalis bu génn na touché nañu cent quatre vingt trois mille bénéficiaires et région bu nekk département bu nekk commune bu nekk sur les cinq cent cinquante deux communes cinq cent quarante neuf communes am nañu au minimum dix millions de francs ki kii euh, sama papa ji si la am na lu mu wax équité territoriale inclusion sociale loolu la président laajoon moo tax ñu tasaare ko noonu ndax président mooy président Sénégal yëpp. nga bokk APR nga bokk PDS nga bokk réew mi mooñ ci njiit ñun ñëpp donc man ñëpp laay financé képp ku may financé Macky Sall mooy sa président et lu ñu bëgg boo leen demee si élection yi nit ñi bu ñu voté nit ki ku la jox 1 million 5 millions 10 millions 500 mille nga liggéey boo demee booy voté pour man boo amee ngor doo voté ku la jox xaalis ba noonu laa ku nekk ak sa ngor ginnaaw kàddu yu Pape Amadou Sarr yooyu def li nga xam ne moom moo jëm ci bilan DER boobu le moom soxna Fatou Bintou Boye li kàddu la yëkkati waaye itam di fësal rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi ñu gën a jàppalewaat bu baax a baax président Macky Sall ba mu gagné li nga xam ne moom moo di ñaareelu mandat bi ngir financement yi nga xam ne nii DER bi lee mu mër na ko indi ci dëkk bu sell bi di Touba mu daal di mën a agsi ñëw naa fa wax ko ak yéen fu a delloo njukkal ñaanal président lii mu ko jox mu yokk ko ba yëg ko ba ñu nit ñu mën cee gisaat suñu bopp wax naa leen lii mu jël séddale ko ci dëkk bi amul kenn ku ko am fii ci Touba ñun dong ñun ñoo ko am kon nañu gën a góorgóorlu ñi nga xamante ne amaguñu ñu mën a am foog naa amul kenn koo xamante ne tardegum na benn weer ndax man yéen ñëpp xam naa leen dama bëgg nag ngeen góorgóorlu ba ñu mun leen a dollil ngeen gaaw a pare ba ñu mun leen a dellu dollil ñu koy sant que équipe bi ñu fi daan yónni ay nit ñu baax ñoom ñii ñëpp a ko seede ay nit ñu baax ñu yaru ñu am yërmande ci doomu aadama lañ ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant yow ñu lay ñaanal ci barki Serigne Touba yal na yàlla yokk la ba nga yëg ko ah ba nga xamante ne président bu toogaatee bu mu la bu la joxoon benn mu jox la cent barki Serigne Touba ki tëj la nag ki nga xam ne moom mooy Pape Amadou Sarr ànd ak Soxna Fatou Bintou Pouye ñu daal dem ci li nga xam ne zone 2 bu Ndindi te Soxna Fatou Bintou Pouye nekk présidente des femmes moom nag ànd na fa daal di teewee li nga xam ne moom moo di meeting boobule ginnaaw ba ñu jógee fi nga xam ne moom moo di kër Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq